ahmaduna ahmaduna hamiduna ahmaduna xam ne kenn ku nekk ku xam dongay tarbiya bi xam Serigne saaliw xam nga jëmm ji bu baax a baax mu mel ni nag Serigne Saliou Touré ku ko tudd sa xel dem ci Serigne Saliou Mbacké waaye dem ci liggéeyal Serigne Touba mu mel nag moom mii nag seede la seede la bu wér ci liggéey boobu mu teew si tey ci barab bi ngir nemmeeku su njaboot gi ak masawu leen lii nga xam ni moo ñoom ñoo ko bokk sëriñ bi nag tey ñu doon sàkku rek ay ay ay ay ay kàddu yu bàyyi ko ci yow ngir ñu ngir xam nañ ni yow de mën ngaa xamle kan mooy sëriñ Saliou Touré nga gën ñoo leeral it kan mooy jëmmi sëriñ Saliou Touré mi nga xam ne tey moo fi bàyyi ko ba tax ñu daje fi ñu ci jégalu bu baax a baax. nit yàlla rek moom. asalaamaaleykum wa mbooloo mi ñu ngi leen ziar bu baax ji leen sant di leen gërëm maa ngi wax ci turu Serigne Bassirou Mbacké Khelcom mii nee na Serigne Saliou Touré li muy njëkk a seere ci moom. jullit piir la. taalibu Sëñ Tuubaa piir la murid saadix la waaw nee na loolu xam na ko ci moom piir la murid saadix la nee na loolu nag doy na sëkk waaw nee sëkk jullit piir la murid saadix la waaw ndax na nee na jamono yëpp yi nga xam ne moom xam na jëm moom ba te ba fii may wax ak yow nii lu baax rek la xam ci moom mais man man xam xam am na lu ko leer na nit nit yàlla biir la waaw nee am na lu ko leer nañ ne nit yàlla biir la sëriñ Saliou it gërëmal na ko boppam moom mi am na ci am na ci lu leer nañ nee nee nee na nee na loolu doy na sëkk waaw nee na li ci am solo nag mooy nee na yéen njaboot gi ngeen gën a góorgóorlu lu baax te xam tànkam fa fa tegoon tànkam ngeen teg fa ngeen teg fa seen tànk waaye nee na ndax ci lu baax la la tegoon ab tànkam nee na yéen gi nag ngeen fexe ba sëñ Saliou Touré fa mu tegoon ab tànkam ngeen fexe ba teg fa ba teg fa seen tànk nee na loolu rek moo ci am solo voilà <laughs> nee na jërë ngeen jëf yàlla yàlla fay <laughs>